kon mbokk yi ñu ngi leen di nuy di leen siyaar ginnaaw bi ñu ñàkk ko ba pare nag ki ñu toogal moom mooy Maysa Ndiaye sa njaay nag defe naa ne ku ko xam ci làmb ku xam lamb xam nga ko parce que li ko waral mooy raison de Thiès mais après raison de Thiès bi CNC bi Alioune Sarr jiite bi mu fi jógee bi ñu tabaatee beneen CNC bu bees bi jiite lamb réew moom la ñu dénk moom la ñu dénk kon Balde lépp lu jëm ci wàllu lamb dóor mu toog ni président Birangue ci ginnaaw waaye tey dama ne naa ñëw ci ki nga xam ne moom moo lambi dóor ji muy Maysa Ndiaye di doomu Mbour di doomu région de Thiès ah, maa ngi lay nuyu président. Babacar maa ngi lay fay di fay waa di nuyu waa Equinox yëpp di nuyu ak ak làmb Sénégal di wax ni avec beaucoup de plaisir ñu daje fii tey arène nationale wàllu li ko li ko waral nag xam nga ko donc c'est avec beaucoup de plaisir. macha allah li ko waral mooy vaccin mais balaa ñu ñëw ci vaccin bi dafa naa Maysa Ndiaye mooy ki yoroon région de Thiès ci wàllum làmb CRC bi yore ko. daan fa doxal ngeen gañe ay drapeau chef de l'État su mujj mu ngeen gañe ko ñaataat nga jiite foofu. waaw CNG bu Thiès nag yàlla def na jiite naa ko juróomi at ba bu may dugg si juróom at bi si lañ ma indi national comme vice président euh, juróomi at yu neex la nag yoo xam ni vraiment lépp luy ndam lépp luy liggéey lépp luy defar pour mu baax yóbbu làmb si kanam. man ak équipe ba ma àndaloon Thiès ànd nañ liggéey ko ba mu rafet vraiment loolu moom bu amee bilan bu may tiire bilan bu satisfaisant lay tiré foofu di si sant nag ñëpp ñi nga xam ni vraiment bi ma demee région de Thiès jàppale nañ ma mu nekk les vice président les président de commission les membres tout court de euh, du comité régional de Thiès mais surtout surtout waa axlu làmb région de Thiès parce que sincèrement que ça soit Mbour Thiès wala Tivaouane amu woon frontière fenn ñoom ñëpp ma adopté woon euh, bokk bokk ak man liggéey bi jàppale woon ma si liggéey bi moo tax daal bépp ndam boo fa dégg rek yomboon na loolu si man côté boobu. loo fa jot a gagné. waa gagné nañ fa nag benn titre drapeau chef de l'État te loolu reef bu rëy la woon si ñun boo xam ni pendant des années région de Thiès doo si daw man je me rappelle bien daw naa ñetti at si ginnaaw titre boobu te avant man ñi ma jiitu woon aussi ñu ngi si doo daw. Euh, mais beneen ndam biñ si am tamit kenn mënu ko quantifier mooy dañoo mus a organiser une première fois drapeau chef de l'État doxul ñu organiser wat une deuxième fois drapeau chef de l'État mu gën a yéesati troisième victoire bi nag troisième fois bi nag ne nekkoon challenge bu rëy ñu ni woon il fallait réussir le paris de l'organisation parce que li tubaab naan y jamais deux cent trois donc euh, loolu moo mu travail woon ñu tuuti moo taxoon sas bi metti moo taxoon liggéey bi metti mais alhamdulilah bi ñu paree le soir du drapeau de chef de l'État waxuñu lépp mat na mais sur sur cent points mën naa ne on avait au moins les quatre-vingt-dix de satisfaction. macha am na solo nga jóge fa ñëw um, ci CNC nekk premier vice président mu mel ni loolu kon liggéey boo doon liggéey moo tax bu ñuy nominé ñu tànn la indi la toftal la ci ki nga xam ne moom moo jiite làmbi réew mi muy Bira Sène nga nekk premier vice président chargé de chargé de lutte avec frappe. waaw loolu li ma la wax la rek cest à liggéey bu rafetee bu sellee doo ko jeex da nga koy li li li olof naan li ni fàng kenn du ko seet. xam naa loolu bokk na si critères yi tax kilifa yi bi ñuy tànn seen xel dem si man. Euh, rëccuwuma ko nag parce que vraiment bu la yàlla dimbalee ñu boole la ak ay kilifa ku mel ni Bira Sène président CRG bu nekkoon président CRG bu Kaolack bi mu ko nekkee maa moom ñu doon liggéey liggéey bu rafet si wàllu région de Thiès man moom région de Kaolack bu yàlla dimbalee ba ñu tànn la boole la ak moom mu mu war doon sa président yow nga doon son premier vice président foofu laa gën a santati yàlla euh, loolu yëpp nag liggéey la mooy li ma wax sànq rek liggéey la boo xam ne tàmbali woon nañ ko depuis suñuy région que moom mu nekk région de Kaolack doo fa liggéey liggéey bu am solo pendant des années nag des années man si région de euh, Thiès aussi pendant ay juróomi at ba juróom-ñaari ba juróom at mais avant boobu maa ngi woon département de Mbour aussi comme président CDG bu Mbour loolu yëpp daal lañ boole xam naa ñàkkul kilifa yi bi ñu seggee loolu yëpp si lañ ne ñàkkul war nañ ko mën a dénk président Bira mu jiite ko jël Maysa Ndiaye teg comme premier adjoint. mu mel ni ginnaaw bi loolu amee nag euh, gars yi di leen xaar ngeen ñëw yore lamb ji di ko doxal macha allah boobu ba tey euh, mu mel ni lamb ji am na tamit ay problème yoo xam ne dugg si na ci parce que da ngeen a ñëw jamono joo xam dañu ajoon lamb ndax coronavirus ba benn moment ñu ubbiwaat ko ñuy bëree bala yàgg ñu ajaat ko mu mel ni moment yooyu coow li bëri na wax ji bëri na loolu nu ngeen ko dundee rawatina ci côté lutte avec frappe bi. waaw boo waxee tax ba ñuy jox lenge yi jox nañu ko si condition yu méttee métti métti. difficile woon na lool jafe woon na lool parce que bu ñu la jëlee benn mbir boo xam ni le président Alioune Sarr mu def si liggéey bu extraordinaire pendant plus de vingt ans euh, mu def fi liggéey bu am solo moo ak son équipe bi fi nekkoon yëpp ñu ni la yow yaa war jël relève boobu te li olof naan ku yokkul danga ngaa wàññi donc soo amee héritage bu mel noonu héritage bi kawee lool lool lool lool loo def rek war nga mën a gën a yokk ay jéego parce que Euh, fi baax bi nekkoon moo kawe maanaam dafa mel ni par exemple nga doon benn équipe boo xam ni équipe championne la euh, sa objectif bi gën a tuuti mooy dellu doon champion comme comme équipe bi bi la téye donc loolu tax suñu liggéey xawoon metti mais mu gën a méttee également mooy fañ ko jëlee muy en pleine Covid nga xam ni solution daanaka amoo ko woon ndax li feebar bi gën a bañ lool la làmb gën a bëgg làmb dajaloo la bëgg làmb saafonte la bëgg làmb jaxasoo la bëgg feebar bi bañ loolu donc xam nga buñ la joxee liggéey di la laaj résultat fañ lay laajee résultat en retour ñu lay laaj bul dajaloo bul booloo bul lii donc euh, incontestablement di nga nangu ni làmb ji met di nga nangu ni mission boobu metti na mais yàlla def na si jàmm biñ ko jëlee ay semaine après si lañ jël ay solution ba finalement ñu tijji tijji làmb ji ñu tijji làmb ji am affiche yu neex dem bay xëccoo bay xëccoo les jours ouvrables ñun CNG ñu génne benn slogan les mercredis de l'arène ñu ni pour ne pas xëccoog benn promoteur ak surtout pour relancer les les jeunes espoirs nañ jël suñu journée spéciale boo xam ni segam benn promoteur soxlawu ko nañ ko jël muy les mercredis de l'arène mais boobu biñ ko tàmbalee benn fan ba ñaari mercredi rek dem nañ ba ñun suñu bopp am problème mu tànn mercredi tellement que les autres promoteurs ñëw nañ sagam ñoom ñooy prioritaire tamit par rapport à ça ñu bàyyi leen ak mercredi loolu yëpp wane ni kon affiche yi ñu ngi fi woon mais fi si nekkati fi si dàqati nag mooy euh, fa mu doo waaja a jeexe di neex foofu la mbas bi dikkaatee gis nga le mois d'août la bi ñu arrêté li fi nekk si affiche euh, rëy na rëy goo xam ni am na doole am doole joo xam ni buñ ko tëggoon loolu la tudda tubaab di tudde c'était l'apothéose mais malheureusement li Euh, constaté rek moo fi des. am na ñu bëri dañ ne loolu am noonu yéen seen responsabilité la parce que bu seen taxawaay meloon ni mu waroon mel xëy na loolu du am parce que yéen dong la ñu jël seen ay yëngu-yëngu arrêté ko muy waa làmb ñu bëri jiiñ leen ko yéen waa CNG loolu tamit loo siy tontu. waaw bon alhamdulilah bu ñu ko jiiñee mais vraiment loolu mooy jiiñ nit lu deful parce que le problème d'abord mooy sécurité bi du du du affaire CNG sécurité affaire état mais wax naa ko léegi également ni ñun dañoo nekk benn particularité boo xam ni li xew si ñun xewul fenn muy mobilisation muy organisation bi muy ceci muy cela bëri na fooy dem foo xam ne li nekk si làmb doo ko fa gis. Euh, sama président mu ngi tàmm di jël benn exemple boo xam ni dama koy répété man it muy euh, mbër dëppi këram mobilisation am na fa alors que équipe bi buy football. à part fi muy regroupé et on demandera le minimum de délégués yu fa mën a nekk mais ñun combat bu amee yéen ñëpp seetlu ngeen ko depuis chez le lutteur déjà il une grande mobilisation en cours de route il y a une grande mobilisation si biir stade bi il y une grande mobilisation te ñu ni feebar bi mobilisation lay bañ kon ça veut dire quoi ça dire que traitement yi dagan fenêtre mën na bañ a dagan si ñun moo tax bi yëf xewee ñu alerter ñu trois à quatre jours avant euh, trois jours avant si le président daal di dagg séjour am à Kaolack daal di ñëw à Dakar di jéem ay pexe di jéem ay lijjanti di jéem a convaincre kilifa yi teg table bi si li mën a nekk ak li mënul nekk mais aussi kilifa yi comme li may wax rek am na lu ñu xam loo xam ne ñun mënuñu ko xam am na loo xam ne également mënuñu jël risque bi par rapport fi feeba bi toll moo tax ñu jël décision boobu pour le monde de la lutte malheureusement décision bu metti mais il faut l'accepter comme tel parce que am na loo xam ni kilifa gi amul volonté bi amul yéene bi pour xañ làmb simplement non amul idée boobu amul amul sax volonté boobu bu bu jëlee mu bu demee ba jël décision boobay décision bu sës la décision la boo xam ni kenn mënu si woon dara il fallait l'accepter comme tel très honnêtement waaye. mu mel ni kon euh, defe naa ne saison bi su ma la déggee daa mel ni kon tëj na wala mën nañoo yaakaar mu ubbi par rapport ak vaccin yi li nga xam ne moom moo ci des muy mois d'août bi wala septembre bi wala day tëj ba kañ. waaw xam nga ñun dañu dañ tudd comité de gestion te kuñ ni gestion mooy prévoir bisu tey bi dafa bokk si li ñuy prévoir pour que nan lañ mën a def ba tàmbaliwaat suñuy activité parce que euh, feebar bi président dina koy tàmmoo le président de la république naan il faut vivre le virus euh, mu ngi fi. kenn xamul kañ lay dem kenn xamul nan lay demee donc li war rek mooy nañ jéem a dund ak moom nan dafa am ay mesures yu ñu tegal nii yoon bi kat boo leen fi jaaree peut-être mën na fee nekk waaye du fi nekk nekk goo xam ne dina lor doomu aadama yi muy lan ñu ne na nga ñàkku soo paree na nga ñàkku na nga takk sa masque comme niñ ko def nii tout à l'heure soo paree sa takk ñàkk sa takk masque na nga jël sa gel nga laaloo ko soo paree na ngeen dandonte loolu lañ ni ay mesures la yoo xam ne tant que nit ki ñu ngi koy def waxuñu ni feebar bi du fi nekk waaye feebar bi même bu bu fi bu fi amee it du jafe. looloo tax CNG jël matuwaay woo leen fi tey arène nationale nii képp ku bokk si làmb yaa xam façon bi nga bokkee si làmb nag parce que làmb dafa bëri ay pàcc. ak façon boo mënti bokkee invité nañ la journée de vaccination gratuite nga ñëw ñu vacciner la. nga daal di dem yor sa carte carte de vaccination dem toog ñu dem waxtaan ak kilifa yi jéem leen euh, sensibiliser par rapport ak effort yi nga xam ne làmb nga koy def ak par rapport ak avantage yu làmb si biir économie Sénégal. loolu yëpp buñ ko tegee si table bi ñàkkul ni kilifa yi dinañ mën a argumenté ba lii nga xam ni teg nañ ko suñu kaw ni arrêté leen ñu mën ñu joxaat beneen note ni ñu reprenez vos activités mais buñ ko reprendre bu boobaa mesures yi ñu fi wax du deñ benn. ak koo mënt doon bala ngaa dugg si làmb ji foog nga wane sa carte de vaccination muy benn deuxièmement bala ngaa duggit en plus de la carte foog nga wane foog nga takk sa masque foog nga yor gel foog également ñuy dannante di def ay délimitation si biir stade bi yii daal defe naa bu ñu ko jëlee comme ay matuwaay euh, dinañ mën a reprendre continuer suñu activité jeexal suñu saison pour war mën a entamer la prochaine saison hmm. mu mel ni loolu nga wax leer na naña mais kon fi mu nekk nii xam na am na loo xam ne xëy na nga ko leer mais saison bi amateur yi ñoo bëgg xam ndax dafa tëj wala. non tëjul tëjul. day continuer dañu nekk di xaar kilifa yi lan lañuy dogal am na jéego bu ñu teg tey dinañ def rapport def compte rendu yeggee ko kilifa yi. di xaar seeni tontu lu ñu tontu nag bu boobaa aussi sagam yéen a ngi fi dinañ aviser dinañ alerter ni fii lañ toll lii mooy blocage bi soit ñu décréter carrément ni saison bi tëj na completement ñu ngi xaar octobre wala novembre pour reprendre ou alors ñu ni on est en pause on va reprendre telle période mais lu si mën a xew daal à partir de tey la ñuy jël les nouvelles par rapport fi ñu jëm mais tëjul. am na mbër yoo xam ne dinaa la ko yóbbante ñoom wax nañ ne yéen euh, CNG la fi nekkoon. ñoo leen gën a maanaam ñoo leen ëpp res ñoo leen dàq liggéey daal. Euh, bon loolu question d'appréciation la mais li ñu am solo mooy liggéey bi ñu dénk mooy organiser làmb liggéey bi ñu dénk mooy assainir le milieu de la lutte liggéey bi ñu dénk mooy nan la ñuy def ba làmb yokk liggéey bi ñu dénk mooy nan la ñuy def ba ku si nekk gis sa bopp si làmb et def naa bi ñu ñëwee ba tey ku si nekk ak façon bi nga nekkee yaa ngi siy santi sa bopp bu dee tëgg làmb yàlla ñuy suturaal promoteur yi yokku nañ journée yi yokku nañ bu dee àmbër bi également jël nañ ay disposition ba ki joxe juróom aaral nañ ko ba muy joxe ñett wala joxe euh, lu gën a yées juróom bu dee également pour assainir la milieu également ku si nekk cër bi nga war a am pour wax si cër boobu ñu ngi koy setal ba loolu di am leneen nag moom bu amee ñu ngi jéem a saytu également euh, kii yi nu ñu koy tuddee règlement yi tamit ba nan lañ koy gën a ñoŋalee ba mu ànd ak jamono. loolu aussi ñu ngi si maintenant bu dee loolu nag tax na ñu ni ñee ñoo gën a mën a liggéey que ñii bon euh, question de choix la mais euh, preuve yaa ngi fii daal en tout cas buy wane ni au moins le CNG de Bira bi Bira seen jiite ñu ngi def liggéey bu jëm pour yokk làmb si kanam. d'accord ñoo leen dàq liggéey non loolu mënuma see d'accord te awma élément pour mën see d'accord xëy na ñoom ñi ko wax tamit xam xëy na am nañu élément yi mais comparaison pour comparaison je sais que journée yi gënul manqué je sais que mbër yi tey lañ gën a mën a aaru je sais que ñi nekk si biir làmb tey lañ leen gën a aar gën leen sàmm je sais que également ñu ngi yokk pour làmb jëm kanam loolu nag vraiment man buñ ñu la dénkee mbir pour mu jëm kanam buñ ñu la dénkee mbir pour nga yokk ko bu ñu la dénkee mbir pour nga euh, boo ko jëlee woon benn yóbbu ko ñaar nga nga nekk si yoon bi pour yóbbu ko ñaar man gëw ma ni kenet gën na laa liggéey ko loolu gëw ma ko. d'accord ci ma ko laa wax waaw. Euh, Balla Gaye Bombardier. waaw. mu nekkoon journée boo xam ne waroon na am euh, mois de août bi li ci newoon bëri na macha allah doyoon na waa trop ñu dégg sa waa dëkk sax ñaxtu nañ waa mbuur ci aj biñ ko aj ne solution mënoon naa am. waa déedéet mooy li ma la wax rek. Bombardier Balla Balla bokk na si affiche yi waroon terminer la saison en beauté gis nga li nekkoon si calendrier bi buñ ko jeexaloon en beauté kon benet saison la ñuy wax man mën naa waat ni duñ dund saison bu gàtte noonu gën a neexe que bi ñu dund mais da nangu dogal li fi nekkoon si affiche y avait Bombardier Balla Gaye booy avait Boy Niang euh, Tapha Tine y avait Gouye Gui euh, Reug Reug y avait Siteu Papa Sow y avait le des espoirs y avait y mais li fi nekkoon si programme dama ni bu ñu waxee dëgg te yàlla tax loolu kese kese kese bu buñ ko jëloon comme activité tëj na activité yu bëri par rapport ak saison yi donc euh, munoo wax ni yaa ngi dellu ginnaaw mais loolu dañ koy nangu vraiment waa Mbour yi wala waa Guédiawaye yi ñaxtu nañ benn bis parce que c'est normal déception la euh, choc la mais après le choc euh, ils se sont repentis la preuve la lendemain jour samedi bi bi nga xam ne làmb ji si la war na am si la Bombardier dem ñàkku ji pourquoi parce que xam na ni solution bi benn la am muy ñàkku tënku si dicté yi ñu yi ñu kii segam ñoom ndeyu mil yi ñoo xam cas bi fi mu toll vraiment ñun CNG tamit duñ mën lu dul ni e-, effectivement ñu ngi si yoon bi loolu la daal loolu la mais nag nit ñi mënoo leen tere aussi joxe seen xalaat si démocratie àdduna la bokk euh, ñu joxe seen xalaat yow yaa ngi xoolee gauche bàyyi kaak gauche am nga xool sa droite mais l'essentiel rek mooy yow sa droite boobu ngay xool gëm ko te xam ni yaa ngi si yoonu dëgg bi. kontaan ci yow may mais fii la ëppee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu loolu initiative yi ngeen di def félicitations à tout le monde jërëjëf. dañuy wax daf ciy dem. la yow boo wàcc sa mas boo waxee boo ñoddee dafay ñëw. te loolu conseil la bu mu ñu jox. kon micro yi bu ñuy waxatee nañoo takk masque yi. yow mi wax takkal masque comme nii moom mi lay tontu mu takk masque nga xam ne dara du man a génn fee ñëw ci yow président defe naa tey journée tey bi en tant que njiital CNC war nga ci kontaan. TV Equivox. Equivox TV ou TV Equivox. yëpp benn la alors euh, maa ngi di gërëm seen ñëw di leen sant di rafetlu seen euh, teewaay kontaan ci yéen lool wane ngeen une fois encore que ni ñoo bokk liggéey bi ba ñu installé la ma waxoon rek moo ci nekk ne en fait ñun wax dëgg yàlla ay la yéwén yéene suñuy premier partenaire alors te loolu dañ kaa gëm moo tax lu ñuy def ñu bëgg ngeen ñëw fekkee ko teewee ko mun kaa seede euh, journée bi vraiment dañ ko initier te la tax ñu initier ko également euh, xam nga lettre dox yi boo ko xamee rek mun nga tekkee ko te gëm nañ ne mbas mi la kon nag pour ñu tekkee ko il faut que ñu def loolu lu tax mbas mi jóge fi alors mbas bu ñu buggee def gàllankoor ñu xeex ak moom bëri ak moom yàlla nañ ko daan ndaxte bëgg nañ mu jóge fi wala boog vraiment mu wàññeeku fi da xam ne lim bi dina néew lool moo taxoon ñu ne nañ au askan wi au sénégalais yi euh, surtout axlu làmb mbër yi promoteurs yi managers yi amateurs yi fans club yi entraîneurs yi euh, waa axlu làmb yëpp tëggkat yi woykat yi ñiy jaay ci bunt bi yéen presse bi yéen ñëpp ngeen ñëw ngi ñakku buñ ñakkoo daañu bëmëx xanaa boog eh, bu ñëpp ñakkoo ñu bëmëx corona mu dem bu ko defee ñu dellu suñu activité ñun de loolu rek mu lañ bëgg dellu suñu activité vraiment Sénégal jëm kanam ñëpp kontaan ñëpp am jàmm ndaxte Sénégal jàmm rek moo fi moo fi xëj Sénégal xamul leen lu jàmm kon nag na fi jàmm yàgg jàmm ji rek fi nekk nii mooy mbas mi jóge fi donc na fi jóge kon nag ñun ñu béy suñu waar keneen béy waaram bu yàggee tool yu mat loolu da mooy dëgg loolu mooy dëgg ñu buggoon nag vraiment ñëpp jéem a def nii vraiment sensibiliser mobiliser dem ñàkku ji bu nu ko defee vraiment danañ bokk ci pays ñuy pays ñuy lim ni ñoom ñoo gën a avancé ci prévention mais ñoom aussi ñoom ñoo gën a avancé ci xeex mi ñu xeex mbas mi loolu am na solo tey loolu vraiment du waruñoo xaar ba wax ni ko li tax mooy problème mbas mi du waru nekk problème yi benn nit du problème CNG problème population bi yëpp la ku ci nekk war na def ci boppam ne man mii maa fi war a jëlee mbas mi ku ci nekk ku nekk su ko defee ci boppam rek mais léegi mu jóge fi ku nekk su xeexee moom mu jóge fi dana bu ñëpp ñàkkoo ah mu jóge fi bu jeexul wàññeeku te lu moo ci am solo nañ bàyyi nag lu am ñu ne diw moo ko war a def non non mbir su amatee nañ jàpp ku nekk na jàpp maa ko war def surtout lii nii nga xam ne c'est mondial jombul kenn <coughs> amul kër gu mu dul nuyoo kon nag ku nekk na taxaw ne man maa ko fay jëlee yaa ko fi war a jëlee moo ko fi war a jëlee keneen moo ko a jëlee donc ku nekk na nekk lii yan wi dama ci war a jël sama waar boo ko defee mais mu jóge fii wala mu wàññeeku loolu daal moo ci nekk mais ñu gër ñëpp sant ñëpp également mais fan yi coow li nga dund metti na en tant que président CNC parce que biñ ajee lamb yi ñëpp attaqué maanaam wax ji am ñu attaqué ñi ne CNC la taxaw ñu ñu waroon taxawee nangam sàngam yow nga jiite kuréel bi mbir yooyu mbir yooyu coow yooyu noo ko dundee non jàmm ak salaam ak dal xam nga sport surtout làmb dafa am dafa dafa ànd ak coow man suñ ma ne am na problème ma waaw mais dafa ànd ak coow mais amul problème ça c'est le charme de la dafa bëgg sax ci taaru làmb coow li kii wax fee kii wax coow mënul ñàkk ci làmb bu ñàkkee rek xamal làmb amul bu ñàkkee xamal làmb amatul bu nit ñi bëre woon dimanche boo xëyee lan coow la déedéet dóoru ko déedéet daanu ko déedéet daan na ko loolu werante boobu dañ koy coowoo rek te loolu c'est comme ça la vie li am am na c'est normal c'est une réaction humaine ma réaction boobu réaction doomu aadama la waajal nañu ñeneen ba mu sës ñu ne amatul déception de juddu xoolal xale boo ko woon nga nga ne kaayam may la 1000 francs yëkkati billet bi taal ko ba mu kii nga ne maa bañ dugal sa poche nu muy def day mer loolu rek la waajal nañ béegi ni këtt na jonn ñu ne amatul bañ ne suba la ñu ne amatul du nekk ci xol amateur ya fan sa club ya supporter ya ñu def réaction c'est tout mais nag bu ñu defee réaction nañ ànd ak sago wax mbir mi aussi na mu demee rek wala ñu laaj ndey mbilli gi mu wax leen nii la demee loolu mooy yoon yeneen yi bañ leen programmé toxal leen également gis nañu bañ ko toxalee eh, ñoom itamit am nañu réagir boobu des na ñaata 4 5 jours ñële dese 2 semaines ñële 3 semaines ñële une semaine mais ku nekk na réagir parce que ku nekk noon xaar bés bi ñëw pour rek nga dem ci loolu c'est naturel et c'est normal alors ndaxte programme bu dul programme yàlla programme doomu aadama bu nekk bëgg na programme mu antu mais nag yow da nga mun mooy vraiment sabablu lay am nag mbirum yàlla yàllaa ko moom yàllaa ko xam tu dëgg mais ñu góorgóorlu rek te sant suñu borom ah lii nii yàlla nañ bokk ci xaaj ñi nga xam ne ñoo koy nittali ëllëg mbas mi at ba mu fa ñëwee nangam sangam buñ ko nelee saa rek fekkee nañ ko dund nañ ko te yàlla nañu yàlla bu ci xaaj bi nga xam ne def loolu nettali atum mbas ma nangam sangam nangam sangam may balu àq ñëpp di bal àq ñëpp également di àqlu làmb rek ñu ñëw rek ñu ñàkku bu ñu ñàkkoo bas mi jóge fii ñu dellu suñu programme loolu rek la merci beaucoup